d'accord oustaz bi nga ñëwee ci historique bi euh, ba ñu def ci lu yaatu dañuy ñëw nag ci li waral coow li mais mm-hmm. d'abord ngan gi fi euh, Jean-Luc Mélenchon ngane si ndax yow da nga koy approuver wala da ngay contester ñëw gi fi ñëw. waaw bu fi ñëwoon di en tant que politicien. Mm. man nee naa damay logique sama démarche. Mm-hmm. bu fekkoon gan gi. ma tuddee ne dafa jógee ci àll kutiye ñëw di ñu wax wax yu bon yi ci ngóor jigéen mm. su doon ne dafa ñëw rek seet si benn xaritam ci wàllu politique mm-hmm. ñu waxtaanee seen waxtaanu politique mm-hmm. dugg ci seen débat ci wàllu Afrique mm-hmm. waxtaanee ci monnaie bi waxtaanee ci polygamie waxtaanee ci France bi ñuy bundu xataal sénégalais yi France mi ngi ne tekk noppi waxu ci bu ñu waxoon ci loolu yam ci nay défendre góor jigéen yi ca France sama yoo nekku ci manaankat waru fee ñëw ak pourquoi mu fii ñëw lan moo tax ma wax loolu dafa baax a leeral ndax ñu bari dañ lay woone waaw xam nga mënul ñàkk nga jëflanteeg ñu mel noonu. Hmm. est-ce que du da ngeen leen di comprendre ku ci wax moo la leeral la lii après yow ci ngay comprendre. Hmm. ndax ñu bari dañuy wax dégg ku wax ñu jël ay waxam. ñu ko hmm. répété waat. man yàgg naa tukki lu mu néew néew fukki at ak juróom. lu mu néew néew fukki at ak juróom fukki at ak ñeent. maa ngi jël avion di génn senegal di dem ak a ñëw. mënoo dem di génn di dem ak ñëw léeg-léeg nga dugg ci benn avion bokk ak góor jigéen avion. ba noppi naan non góor jigéen waruma jëflante ak moom ci wàllu gu jëm ci wàllu état laïque. Mm-hmm. état bii du état islamique. Mm-hmm. mais état laïque la. yow nga nekk ci biir état boobu ne no képp ku mës a défendre góor jigéen bu leen jëflante ak moom non du ko wax. Mm-hmm. loolu waral ka njëkkoon a ñëw waa Union européenne yebal ko. président Diomaye dalal ko. Charles Michel. Charles Michel bi mu ñëwee. ay nit def nañ tout. Mm. pour ne Oustaz Makhtar fan ngeen nekk yéen a doon wax démb di naqarlu man leen man du ngeen ma ci dégg de lu ko fi indi maa ngi dégloo. Mm. ñu ñëw ñu dalal ko ñu waxtaanee seen mbir ya ñu waxtaanee lañ ci génn paasu président Diomaye laa dem gis mu bind la ñu wax li ko fi indi. Mm-hmm. ma jël loolu nag dégguma ci mu wax fi mbirum góor jigéen ak lu leen may droit fii ak euh, la muy taxaw ci wàll googu. Mm. na ñibbeeg jàmm ba beneen yoon bu bëggee dellu si mu dellu si waat. ndax man noonu laa mas di doxee. Ah, ci ganong Macky Sall yi fi daan moo tax waaw parce que nit ñi seen interrogation mooy lan mooy ñi fi doon ñëw depuis 2012 ba nëgëndi si euh, contestation yi même bu dee am na bëriwul bii ñëw Jean-Luc am coow loolu. kenn mosuma mën a génneel ne Makhtar Sarr contesté na président Macky Sall dalal na benn waaye ñu tudd ko ci wàllu ngóor jigéen lu dul bu ñëwee wax na ci mbirum góor jigéen. Mm-hmm. mu wax ci sama xalaat ndax dafa wax ci mbirum góor jigéen. Mm-hmm. kii nii xam nga njëkkoon na fee ñëw. ki ñëw ki président Diomaye dalal. Mhm. njëkkoon na ñëw Sénégal président Macky Sall dalal ko. ba takkal ko fi médaille. Mhm. mais kan moo ko yëg. Ah, ku mel ne man yëg na ko mais sëñ bi loolu du lu ñuy siiwal di ko wax. amul ma benn njëriñ ndax dégguma ne wax nañ fi lu jëm ci wàllu ngóor jigéen. bal sax jamono yi wax dëgg fa yàlla gis naa ne dalal na ko gis naa image yi mais nag xaqiqatan sax xaw ma woon waaj ci li muy yëngatu. kon awma problème mu benn waaye jugee na bitim réew di ab tubaab ca mm. bitim réew ma nga fay défendre góor jigéen waruñ ko dalal fii ci Sénégal non lan la fi ñëwee ah, kay fa la wax ji ne bañ manipulation yooyu moo tax waxuma ci mm. fekk na jamono yi maa ngi tukki nekk bitim réew fan yëpp nekku woon Sénégal d'accord mais su ma gisoon ne war naa ci wax bitim réew laay toll def vidéo ndax fu ma toll am naa possibilité mën a def vidéo mais defuma ko ndax dama ne du ma ci wax mm. ku ñëw waa union européenne ñoo ko yebal mu ñëw waxtaan la muy waxtaanee ci turu union union européenne dellu amoo lu ma ci wax. deuxième chose buñ ma wax bu yàggul talaata jii moo mujj talaata. fii laa nekk ci émission daayira bi avant muy wàcc avant may dugg ci ci studio bi. ñu yónnee ma benn image. xëy na su ma teeloon a fàttaliku loolu danaa ko jox technicien bi mu dugal ko. image su benn bërëb bu ñu doon ubbi fële ca Kaolack. ñu ne waaw non dañu jël benn bërëb boo xam ne nii. dañ ko doon ubbi ñu jël drapeau góor jigéen yi tubaab bi bi muy dagg morsa bi mu doon dagg drapeau góor jigéen ñi la ma ne waa ji ah bon ma ne ko loolu doy nawaat waar yónnee ma ko mm-hmm. mu yónnee ma ko ma liir ko ne ko ah waa baax na ba maa ngi dugg si ci studio bi mm-hmm. gis ne du drapeau góor jigéen verte jaune rouge bleu la mm. quatre couleurs la am mais boo koy xool di ko séen daf lay nuru comme drapeau góor jigéen te drapeau góor jigéen dafa am mauve mm-hmm. am orange boo xam ne dafa xaw jëm ci mauve. Mhm. Euh, jëm ci euh, beige. Mhm. orange bu xaw a jege beige. muy six couleurs yooyu mooy seen six couleurs yi gën a siiw amoon nañ nag drapeau boo xam ne ci jamono moom lañ daan yëkkati boobu amoon na mhm. quatre couleurs mais quatre couleurs yooyu noonu léegi laalewul ak ak verte. rouge nekku ca ak yeneen kuréel yu couleurs yi mel noonu. leen bi ma paree émission daayira bi laay wax ak ma ko yónnee woon ba mu ne ma ah wax dëgg bàyyiwuma ko woon ma ne ko nag attention man nag du ku ma yónnee wax rek mbir rek. ma nekk ca di wax. d'accord bu fekkoon téel la damm na am na mel ne mbokk corrigé naa ko ci te xam naa ko ku ñu naw la ma gis ko mu jël loolu dugal ko ci benn bërëb naan gis nga ñu ngi ubbi nii benn drapeau benn bërëb. Mm-hmm. boo xam ne nii drapo góor jigéen ñi lañu def comme morceau boobu ñu doon dagg. te mm-hmm. nitu diine la dama bind ci saasi bi ma ko gisee corrigé ko. jël drapeau bi ni mu mel yónnee ko ko pour wane ne ñi nga xam ne dañ naan waaw teel na. teel na boobu laa nekkoon di tël-tëli ak ñi nga xam ne dañ naan non dafa war a teey mhm. buñ ko indilee benn mbir teey a tax loolu déggu leen ma ci te am na ñu ci doon wax xamu leen d'accord dikku kële tamit teey a tax déggu leen ma ci ndax man mhm. sama waxu tey dama koy màndaxe balaa ma cee wax ak waxu démb mhm. du ma ne waar vaara guñ ma de gars yi ak a ñoo mën a vaar waaye vaar nañu Oustaz Makhtar Sarr lañ cay dajale du bari de li tax ma wax loolu na mooy dama ko gisagul moo tax ma tudd loolu lan moo indi mooy position bi benn la du changé di ñaan doon bu ma doon misaal naan ciment la damay tooy benn yoon ci wàllu googu noonu. Mhm. looloo tax xam naa luy manipulation. dafa am benn régime bu daanu. Mhm. bi bees daana leen ñu toll ci ñoom ci mhm. wujjee ak ñoom. bokk na ci mbirum góor jigéen ndax ñoom mbirum góor jigéen xeexee nañ leen ko ñoom régime bii nga xam ne ñoo falu. xeexee nañ ko régime bi daanu. léegi régime bi daanu tamit ñoom ci saa si ñoom it dañuy yëkkatiwaat loolu bëgg leen ko xeexee. léegi nag bëgg ko xeexee ñoom dañuy toog seen ruq nag yow bëgg la def nga nekk benn commande maanaam bëgg la def nga nekk benn télé ñu lay commande ñu lay commandé. Mhm. dama ne kenn du ma commandé. ah nga ne yow doo ci tombé ci du ma ci tombé ci boobu. loolu moo waral bi kii dikkee. Mhm. Euh, bu fekkoon foofu lay am. Mhm. maanaam dafa ñëw waxtaan ak président Sonko ci seen wàllu parti wàllu dellu. ba tey la ma waxoon laay wax de na défendre góor jigéen ñi ci France. mais bi mu ñëwee fii dafa ñëw seet si benn xaritu politicien am. ñu waxtaanee seen mbirum politique Afrique ak ne beeg nangam dellu. du ma ciy wax xam nga lu ma ci wax la. maa toog déglu waxtaan wi. mu wax a wax a wax président Sonko moom moo njëkk a ubbi. Mhm. waxtaan waxtaan waxtaan ba dugg ci mbirum góor jigéen wax ci lu mhm. yaatu. Mhm. bi mu daanalee tubaab bi jël wax ko ne ko moom mooy première nit ki nga xam ne ni moom moo dugal loi maanaam député bu dugal loi. proposition de loi assemblée nationale. pour ñu may ñaari góor ñu takkante. pour ñu may ñaari góor ñu takkante. may déglu lan mooy doon réponse bi. président Sonko daaneel wax ci leneen. mais réponse bi ñëwul ci li mu ko wax ci wàllu ngóor jigéen lu sévère. ma ne non réponse bi dafa waroon doon luy fukk noppam. parce que li mu njëkk a jiital wax la yow. li mu njëkk a jiital wax danaa ci ñëw. waaw loolu li mu njëkk wax. Mhm. bala ma ñëw ci loolu nañ ñu tegal li président Sonko wax ba nga xam ne ni benn diggante boobu nga mhm. xam ne wax na ko. Mhm. moom moo indi polémique bi. mën nañoo dem ci réseau yi ñu tegal. waaw mën nañ ko seetaan ñëwaat. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans, la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un hors-la-loi. l'admettons. Nous l'admettons. Nous l'admettons si telle, si telle est la culture, le mode de vie de la France et de l'Europe. La France particulièrement et de tout le monde occidental, et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénoncent, la France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à des musulmanes de s'habiller comme elles l'entendent. conforme à la culture au mode de vie et aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent, peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de les trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gour Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces euh, illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie ne peut pas être uniforme et universel il doit souffrir de quelques exceptions ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène. voilà oustaz. Mhm. Euh, Ousmane Sonko ay nasaraan la ciy làkk ndax dëgg-dëgg comprendre nga li Ousmane Sonko di wax. waaw bari na de ñu ma gis ndeysaan ñuy mm. wax lu bare bari na oustaz euh, tubaab la wax te déggoo tubaab danga war a dem ci ñi dégg tubaab ñu firil la ko. Mm-hmm. d'accord wax dëgg fa yàlla. dégguma tubaab waaye nag comprendre naa bu ñuy wax tubaab. Mm. Mm-hmm. maam li Sonko di wax dégg nga ko waaye nag wax bu dee. wax daal nga léegi d'accord. sama oto léegi bi ma gaaree. Mm-hmm. laa jël vidéo bi vidéo bi maa ko jox waa Régis. waaw. lii benn këyit la bu ma gisee bu nekkoon ci oto bi. d'accord bi ma yoroon. ci laa ko dagg yor big bii di déglu vidéo bi di bind. damay damay wax nag dama koy tekki ci wolof maanaam li ma doon bind bind ma ko tubaab de lii ay wolof la. ay wolof la laa ko laa ko bind. ay ca tekki. balaa ma koo tekki. Mm. jamono ku yeewu tuuti doo wax ne diw sàngam Aïda Mbène mi dégg lànk français. Mm. noo déggul arab ndax làng nekkatul baaraas boo déggee benn làng da ngay jàll ci beneen. Mm. tey su ma la yónnee woon ci sa tablette boobu benn texte moom bind en arabe immédiatement boo duggee Google mu traduiral la ko. Mm-hmm. quelques mots moo ci am ak coppeeku. Mm-hmm. te loolu bu fekkee ne sens bi xam nga lu mu doon man mën na nekk loo comprendre. Mm-hmm. dangay dem tey ci benn daje boo xam ne nii dañ ma fay yebal man ma dem dégg arab kiy wax sinwaa lay wax ma toog ñu takkal ma benn casque. ñu may waxal li muy wax ci saa si. ma koy dégg ci arab noonu ñu koy defee ci loolu. noonu la amee yeneen i application yu ni yoo xam ne. Sonko buy wax ci en francais mën naa koy déglu ñu ma koy wax ci arab lu mu doon. ndax loolu ñuy déglu danañ ko nangu nañ noté loolu denc. d'accord te man bii defuma noonu de. bii mm. demu ma pour déglu ji ko ci arab de. Mm. dama ne bi may gaare sama oto laa ne léegi ci Seneweb boobu ay 14 heures et demi mooy jot ci laa ne li may wax dama ko bëgg a wax mu leer moo tax il faut que may jël temps ma bind li nga xam ne moom laa déglu léegi nag bu may traduire li nga xam ne moom laa moom lañ teg ci vidéo bi. Mm. Euh, léegi mën nañ ne ma non fii sa traduction da nga juum. Mm-hmm. d'accord mën naa nangu. Ah, waaye léegi nañ déglu. li mu wax mooy def ne. Mm-hmm. ci vidéo bi maanaam euh, li ko jiitu nag. Mm-hmm. yeneen yu bari la. yoo xam ne buñ ko toppee ci li mu wax ci wàllu sécurité pour wane ne <coughs> ak maa dégg li muy wax. Mm. perquisition baat bi nga xam ne tudd na ko. ñaari yoon la dikk ci discours bi. bi muy wax ne France. sénégalais bi ñu leen di def lu mel noonu fii ci Sénégal di leen teg bundu xataal googu. Mhm. ñoom waxuñu ci. Mhm. ci la tuddee baatu percussion ci waxam. Mhm. deuxièmement bi mu tuddaatee baatu percussion mooy bi mu ñëwee bay wax toll ci mbirum góor jigéen. ci la wax France dañoo seetaan ñu ngi doon bundu xataal kenn waxu ci. wax ci lu jëm ci wàllu monnaie bi. wax ci lu jëm digganteem ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, opposant bi nga xam ne nii moom moo fi ñëw. seet si ko. ci lay waxee loolu ba yegsi ci diggante bi ci wàllu ngóor jigéen mm-hmm. ngóor jigéen lim ci wax ci wàllu tubaab mm-hmm. man mi ko yàgg dégg muy wax nga mm-hmm. xam ne Sonko mën naa ne discours bu mu def Makhtar Sarr ma ko doon déglu discours beeg li mu wax Walfadjri li ci sore bariwul te bu Walfadjri bi bu yàggu rek laa ko daggaat boobu kii ñëwagu fi laa ne ah gannaaw ñoom diggoon nañ ñu ne dañuy war a criminaliser ngóor jigéen xaaral ma dem dagg vidéo bi nag daas fanaanal denc mm. jotagul de waaye naa ko daas fanaanal denc man mi dégluwaat vidéo ba mu jeex su ma gisee ñenn ñu may daggal benn extrait di ma ko yónnee naan oustaz li nga déggul tubaab fii. Mhm. kaay ñu wax la ne Sonko lii la wax ci ci ci wolof. xamuñ ne ñoom vidéo bi mën naa leen a jox ñoom lañ may daggal li ci des te man da vidéo bi maa ko dagg bi ñu teg nii. <laughs> yaa xool maanaam sa qui prouve que yow comprendre nga pour en réponse au. vidéo bi d'accord vidéo bi man maa ko dagg. Mhm. léegi man mi mën a dagg vidéo. Mhm. mooy tontuwaale manipilation yi ñu wax no oustaz dañoo dagg vidéo rek yónnee ko ko mu nekk ci di wax man we mag naa loolu de. parce que dañ jàpp ni sax dañ la nax victime nga d'ailleurs ci li nga xamante ni moom moo xew. akamaa mag loolu man maxtaar Sarr bu nekkoon ku ñuy dagg vidéo di ko yóbbu dana toogati fii di wax man miy def aaxiru zaman àdduna bépp di ma topp di ma seetaan depuis 2013 ak tey. Mm. fii ci Sénégal ku dul jinne dana ma yónnee benn vidéo vidéo pour bëgg ma mais li ma lay njëkk laaj mooy yónnee ma bi. photo bii waa ji yónni woon ma naan ma dafa am bërëb bu ñu ubbi boo xam ne nii dañ fay euh, maye. Mm-hmm. wala dañoo jël benn benn morceau boo xam ne nii drapeau góor jigéen yi xam nga lu ma ko njëkk laaj mm-hmm. yónnee ma lien bi maanaam bi photo rek la ma yónnee yónnee ma bi man noonu lay doxee ci lu mënti doon mm-hmm. kon amul ku dagg vidéo yónnee ma ko ma ci wax amul man maa bokk ci njëkk ñi ci njëkk a wax ci Sénégal jeudi la xew jeudi ci guddi laay def émission ndénkaane wax ci te laataa ma ci wax dañu toog di déglu waxtaan wi man ak ku tudd Oustaz Saïd Diallo. Mhm. ñoo toog nii di déglu waxtaan wi ma déglu ko ba pare di ci wax. mais boobu capté nga eh, comprendre nga woon comme ni nga toogee traduire ko nii. ma ne la comprendre ko moo tax bi ma koy traduire laaju ma soxna ay Mbène ñëw ma fii ne la waa Sonko lu mu wax fii. waaw léegi nañ déglu li mu wax dane mhm. askan wu ne am na nu muy saytoo li xew ci réewam. Mhm. wolof laa koy firi de askan wu ne. am na nu muy saytoo lii xew ci réewam. ma joxe ci ak takk mooy li mu tuddee exemple. France dafa tere lu ëpp benn jabar. mooy li mu tuddee monogami France da ko tere. man su ma ko defoon damay wàcc yoon su ma demoon ba France def ko fa damay wàcc yoon étudiants yi ne taj taj tàccu. saa déggul tubaab de. waaye boobu xëy na dëppoo ak li mu wax. deuxième mu ne France ci boppam. ak réewu tugal yu bari te loolu yow. Mhm. mu wax ak ganam gi ne ko yow. Mhm. ci woy politique yu néew yu koy xeex nga. Mhm. dañuy bedd nit ki ngir ne. day dund diineem. lu ci mel ne jullit. solo ni ko diineem bëggee. mu ne France dañuy bedd kooku. te loolu sénégalais yiy dund France nangul nañ leen ko. waaw. saa déggul tubaab de mais wax boobu dégg na ko. deux troisième mu ne ko. bu nit nu nit mu ne ko Sénégal mu ngi ko ñëw ne ko Sénégal nu nit xewit wii. Mm. xewit mooy phénomène. mooy phénomène. tuddul tuddul foofu. danaa dimbale sax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo dégg tubaab te dégguñu wolof mënuñ koo firi man li ma dimbale ba ma déggee tubaab mu mën ko firi. Mm-hmm. dañ may araab arabe boobu nga wax dañ may firil baat par baat. man damay nekk ci rédaction yéen journalistes yi fa may nekkee ngeen wax baat na baatu tubaab ma wax leen ko ci wolof li muy tekki. <laughs> Hmm? Mhm. man mi déggul tubaab maay ñëw ci biir journaliste yi ñu wax benn baatu tubaab ma wax leen ci wolof li muy tekki te dégguma tubaab de. Hmm. ok mu ne xewit wi maanaam phénomène. Hmm. nu nit xewit wii ñuy wax nanguwuñ ko waaye am nañ ci yaatu dënn mooy baatu n'est pas mooy nanguwuñ ko. nanguwuñ nanguwuñ ko waaye am nañ ci yaatu dënn. ne pas accepté mooy nanguwuñ ko. nanguwuñ ko waaw. mais toléré nañ ko. mooy am nañ ci yaatu dënn. dégg naa koy firi toole la naan noonu maslaa ma ne ko bàyyil ba Maxtaar Saat di wax firil la ko. toléré moo tolloog yaatu dënn. yaatu dënn mooy lan est-ce que du masla du fekk si maslaa maslaa baatu arab la du wolof. waa mais pour ñun ñu koy comprendre mooy masla mhm. waaw. loolu mooy yaatug dënn mooy noo man de wax dëgg fa yàlla bëgguma ko nag waaye nag nañ leen bàyyi rek ñu dund nekk ci jàmm ndax nag wax dëgg fa yàlla loolu mooy. Mhm. to looree. d'accord mooy maslaa. mooy maslaa. Mhm. lii laa jëm baaraam ne ko wérut amut. maslaa amul Sénégal. déedéet. lu tax lu tax oustaz. may ma bu ma firi ba jeexal. waaw loolu dama ciy jël dama ciy dellusiwaat waaw ayca. oustaz bi déggul tubaab kay bàyyil mu wax ba yeggal rek. waaw ayca loolu mu ne li gën a wóore di mooy. Mhm. ñii doxee lii liñ ñu ko bëgg a ga mooy liñ ñu ko bëgg a imposer mooy ga ñii doxee lii maanaam discours ba mu jeex tuddul baatu homosexualité. phénomène la tudd. ay phénomène la tudd fenn la tuddee ngóor jigéen ci wolof la ko wax. mu ne euh, bu yàgg ba tey noo ngi nu koy maanaam bu yàgg ba tey. ñoo ngi dund ak xewit wi te mosul am kuñ ci bundu xataal. mooy persécuté. mooy persécuté mu ne persécution amu ci bu yàgg ba tey ñoo ngi dund dund ak xewit wii te mosul am persécution bu ci am. du fii du ci réewum Afrique. muy fii ci Sénégal. Mhm. wala fenn ci Afrique amul fu leen mos a man maa ko tuddee bu ndoxataal mooy perquisition. Mm-hmm. perquisition mooy nit ki nga xañ ko ay àqam. Mm-hmm. yelleefam jaay ko doole ba lépp loo xam ne amoon na ko de ay droit nga xañ ko ko. Mm-hmm. dégguma tubaab nag waaye baat boobu moom loolu lay tekki. mu ne loolu amul ci Sénégal wala fenn ci Afrique lii tamit ma ne ko wérut. te lu ci nekk bu ma dellusiwaatee dama ciy joxe ay exemple ay takk. mu ne ku ne nga koy joyanti ak ni nga koy joyantee fii ci Sénégal. ngóor jigéen lañ ko tuddee maanaam xam nañ ko nekk loo xam ne baat bu ñu réere la ñu ngi ko tuddee ngóor jigéen daanuwul ci asamaan. Mm. maanaam jógee kowul ci asamaan rek daanu. loolu tamit defe naa moom la wax ci ay tubaab mm. ngóor jigéen mu ne jógee kowul ci asamaan mi ngi fi waaye ñu ngi leen téye mooy seere mm. te dañuy wëy di leen téye. gérer mooy téye. waaw gérer non yow géreel ma ko foofu rek mooy téyel ma ko. bon ci olof ni mu ko tekkee. Mhm. mooy ma ko. téye téye baat la boo xam ne dafa làmboo comme uuf wala ñu ngi leen ñàngam mooy téye. man damaa déggul olof bu baax mais gérer moom bu koy wax mooy ñi ngi xam ñi ñuy doxaleek ñoom. mooy mooy mooy téye gi mooy ñi ngi fi maanaam sànniwuñu leen ci biti. mais ñi ngi leen fi téye. ñu ngi ut ñu ñuy doxaleek ñoom. oustaz ñu ngi ñu ngi ñun ñu ngi xam ni ñuy doxaleek ñoom moom Sonko noonu la ko bëgg a waxee. génn mais tey mooy ñu ngi leen di accepter. c'est comme si pas pas accepter mooy nangul accepter mooy nangul nangul lañ leen. gérer mooy ñu ngi leen fi téye bàyyi leen noonu ñu nekk fi. ah loolu selon oustaz Makhtar ñu nekk fi selon la tradition de oustaz Makhtar ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoo gën a dégg moom laa ne mën naa am lu ma ci juum après ñooñu danañ ko joyanti. am benn ci man mii. Mhm. merci beaucoup ba tey ñu ngi leen gérer te dañuy woy di leen gérer loolu laa ne ñu ngi leen téye te dañuy woy di leen téye mm-hmm. bokkul ak ñu ngi woy di leen nangul ñu li ñuy dund bokkul de. Mm. waxul ne ñu ngi nangu ñu ngi leen di nangul li nuy dund loolu feneen la ca tolérance mm. waaye ñu ngi leen di gérer te dañuy woy di leen gérer mu mm-hmm. dëppoog ci nan nag mu ne ñu dëppook sunu doxiinu askan. dañ leen di téye mooy nu dëppoo sunu doxiinu askan maanaam nekku dañuy jël di leen fi bàyyi comme ñeneen ñi na nga xam ne ñoom lañu la ñu dinañu bàyyi la ñuy lambar lambari ci mbedd yeeg di foonanteeg nangam mm. waaye dañuy wéy di leen gérer mm. nu dëppoo doxiinu sunu askan mm. mu dem bay jeexal ne mm-hmm. ñun dañoo am sunu dundin mm-hmm. muy dundin boo xam ne du ñu boole lépp maanaam du nekk luy jaxase jaxase lépp mu nekk benn tënk bi muy régime mu ne régime ngir tënk. Mhm. Sénégal mhm. ak fu bari ci Afrique. Mhm. du nangu kuy jóge ca biti. mooy bitim réew du nangu ku fa jóge ñëw fii dinu ga ñuy daganal phénomène bi xewit wi du nangu ko jugee ko ci biti ñëw di ñu forcer. wala di ñu imposer. ngir ñuy daganal maanaam dépénaliser. li nga xam ne mooy ngóor jigéen mooy daganal. waaw ñu maam ñu am liberté ci réew mi. dagan neex def. Mhm. Mhm. dégguma tubaab de waaye wax ji moom defe naa leer na ci man naññ naññ naññ. Mhm. léegi fan la ñu taxaw. discours bi da koy déglu forme ak fond forme bi. changéwul te loolu laa gëm ba léegi mooy conviction mooy Sénégal kenn du fi mos a dépénaliser ngóor jigéen. waaw ah. kon foofu ànd nga ni Ousmane Sonko ba tey la mu waxoon ak yéen. boo ko dégloo loolu la loolu la répété man nee naa kenn du man discours politicien du kenn ku déglu benn discours ñëw ne non dafa bëgg daganal ngóor jigéen kii buñ ko mayee doole nangam loolu politiciens yi koy wax ñoo koy wax ak koo xam ne day wax te sóoraalewul bàmmeelam man lu may wax damay sóoraale sama bàmmeel sama diggante ak sama borom ne naa kenn ci suukarul sama kafe du mm. Sonko du Macky Sall te yaakaaruma ci ko tamit ci kenn du joomaay du beneen nguur guy ñëw mm. bu doon loolu la nguur gi weesu bi nga xamee ne toog fii nga daan toog fii nga daan toog ci studio ne oustaz ngi kaas rek mm-hmm. ñu ci ëpp te kaasuma en tant que parti mais injustice nervi yi fii laa toog la ma leen wax ba léegi vidéo bi nervi bi ci vidéo yi ëpp vie ci àdduna bi la bokk. am na yu ma ci si loo xam ne ci défendre daanaka du défendre mais wax dëgg wax dëgg. défendre injustice nekkul défendre benn parti mais wax dëgg. dëgg joo xam ne nii nag ka nekkoon ca ñu koy tooñ kooku moom dëgg ci. Mm-hmm. mooy jaay doole. Mm-hmm. jël ay nit di rey. Mhm. jël ay nit jox leen ay euh, arme ñu nekk ci mbedd yi di tiire. Mhm. loolu ba ma ci wax ba ay nit nga xam ne ay nit ñu ñu ràññee la ñu naan ku ci dee yaa perte ma toogaat fii naan ki naan ñoo ku dee ci loolu ñoo perte ñooy reykatu nit ñi. ba ma koy wax xam naa li ma ci dund de ndax ña koy wax am na ci ñoo xam ne ñu ma jege lañu mhm. ñu ma xam mais am na foo xam ne bu may wax sóoraale ma Samba wala ma dem Demba. gis nga période boobu may wax lu mel noonu. boobu milliards yaa ngi taxe taxaw tege. te su ma demoon nangu lenn li di dal ci kaw parti di leen chargé. Mhm. danañ ma woo de am lu ñu ma jox. man miñ ñëw ci yenn période ci aar daara bi mu juddoo ñu dem doxal. Mhm. lii nag li tax ma koy leeral mooy day tontuwaale ñu naan dafay. influencé euh, euh, euh, nga sa tourné na tourné nga sa veste. loolu gën a jam nag. non non da ngaa soppiku. ndax yaa yaa fi doon soutenir Ousmane Sonko. tey non non loolu ñeneen ñee koy wax dama ne ñi nga xam ne ñoo bokk tey ci ñenn ci Pastef. du mhm. ba naan non dañuy dañuy santaas baatu santaas. Mm. moo tax may leeral lii nii. dañu bëgg ku leen woo moo tax ñu nekk di wax yi ñuy wax di yëkkati yi ñuy yëkkati. Mm-hmm. man leen boobu noonu amutoon santaas de boobu da nga doon nangu ne man am naa émission bu am audience. damay mm-hmm. dal ci kaw sonk dañu jox la ay millions. Mm-hmm. man leen loolu xaraam séexlu naa ko. aar daara bi mu juddoo ay tonu ceeb lañ jël sama mag Serigne Fata xam ne li may li may wax. ne dañ ma koy indil sama daara man leen bu mu fi ñëw na dëpp. Makhtar Sarr. korite gii paase ak tabaski gii paase ministre bu siiw bu nu xam ci nguur gi daanu. xaalis bu bari la jox nit mu dugal ko sama orange money damaa toog de gis mu sonné ma ne waa lii lu mu may woote ci numéro bi mënu ma ko jot. Hmm. toog ñu woo ma Oustaz Makhtar ma ne waaw ñu ne ma ministre diw moo lay yónnee som tel ma ne leen pour lan. Hmm. ñu ne non da wax rek nañ leen ko yónnee noonu pour jox leen ko ma ne ko non man Makhtar Sarr dama bokk aar daara bokk ànd saa mu jukki ko joxe ñu ne non Oustaz yi nekk di waaraate ci rajo ma ne ko mënuma ko jël ah maa ngi capture yi damay archive jël jël lam ma yónnee woon ne ko wax ma ban numéro laa la koy yónnee. Hmm. mu ne ma sama numéro bi am na orange mu ne ma delluwaat ko numéro boobu noonu la ma bindal ma message ne jot naa ko danaa seet ñu ko soxloo ma jox leen ko. Hmm. Hmm. daaw bi ma ko yónneewaat ci tabaski ne xaru tabaski lañ ko tuddee fekk maa ngi màkk. xam nga yónnee na ma suukaru koor bi korite gi waaj a jeex ma delloo ko xanaa na ma bàyyi. ñu indil la xaru tabaski. ñu ne xaru tabaski lañ la yoon fekk maa ngi màkk gisaat même télé message bi même somme bi. Mhm. ma ne mbaa du suñ sama gaaya ya. màkk laa ne mais dama jël sama téléphone ne kar woote mu wuyu ma. Mhm. ma ne ko yow xanaa liste bi da nga ma da nga effacé sama tur. waxoon naa la li ma la wax ba léegi ci loolu laa nekk mooy jëluma ko. Mhm. ndax mënu ma ko jël waxoon naa li sama raison nag nga respecté ma ko. ma yëkkati delloo ko. waaw Makhtar Sarr nga delloo ko ma delloo som yooyu noonu le du may ba tey nguur goo xam ne joxeegul dara. Mm. te kenn amul ne da nga ko mën a santaat ba mu jox la dara ma toog naan non damay yuuxu di wax. Mm. ngir ñu woo ma jox ma dara loolu baax na ñenn ñi nga leeral leen mais moo xew. mooy président Sonko moo indi benn débat public am benn tubaab bu bàyyee ko ci àll kutiye wax naa ko ñëw Sénégal di wax ba ne moom mooy ki nga xam ne moo njëkk dugal loi buy daganal ngóor jigéen ca France ma mooy mu wax ko ne ko ñun tamit ñu ngi waaja a dugal loi boo xam ne mooy criminaliser ngóor jigéen ñun foofu lañ ci toll. ah kon ngeen oustaz yow problème bi mooy Sonko loolu la waroon wax. discours bu fermeté boobu laa wax ne moom laa bëggoon a dégg. mais pas discours ba jiitu nga xam ne nii moom moo ko wax mais bi mu paree bi tubaab bi waxee bi mu waxee dafa war a jox cadeau bi nga xam ne moom la a jox bi benn discours bu gàtt la ci teg boo xam ne waxul sax lu jëm ci liw tubaab bi wax ci wane ne ñun duñ ko mës a nangu ci Sénégal dañ koy voté waan foofu laa ne laa soxla woon bi mu waxee loolu ba pare ndax bi muy wax étudiants yi am na ci ñoo xam ne nee naa ñu ngi doon tàcc ba tey dégg naa ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci polémique. waaw mm. ah, xale yi tàccuwuñu ndax euh, ñu ngi doon déglu Mélenchon jamono jooju mais Oustaz. ba dañ ne tàccuwuñu balaa ñoo jàll. waaw danañ jàll ba tey ci dis maa ngi ñëwaat ci balaa ma fàtte tàccu. Ah, waaw ñu dem réussite parce am na élément buñ ciy seetaan.

devait être ouverte à tous ceux qui voulaient. rassuré na ñoo rassuré wuñu mais première yabaate mi ngi ci ab tubaab bu xonq jugee ko ci àll kutiya ñëw Sénégal janoog ministre premier ministre di tudd mbirum góor jigéen ay ndaw di tàccu yëguñ sax li muy wax ndax bi mu tuddee baatu homosexualité dugal naa benn loi étudiants yi xaw ma ñoom la woon am na ñuy tàcc ñoom d'abord ba ñeen nañu di leen fem yabaate foofu la tàmbalee d'abord oustaz fii dafa am ay tàccu. waaw ci ah. vidéo bi. bi mu waxee mi ngi tàcc ba ñu naan ne eh eh. waaw ah, oustaz am na am na am nañu. déglu ma rek déglu ma sama wax dafal ndànk ma ne rek sama wax. Hmm. dama ne la ku ko dégluwul doo ko mën a àtte man boo may déglu danga may dégloo tal man damay commun sama damay commun yàlla dimbali na ma mën naa communiquer alhamdulilah. Hmm. léeg-léeg ma am benn kele bu ndaw bu ma dugal boo xam ne kele boobu bu la rëcc rek dootoo ma déggati. Hmm. na ma ne bi muy wax boo wax ne moo dugal loi am ñuy tàccu ci étudiants yi donte am na ñu leen di femm donte am na ñu leen di femm moo àtte ne nekkul dañ doon tàccu ngir ànd ca la muy wax. Mm, waaw waaw merci. mais ñoom yëguñu lax nga xam ne moo xew ba ñuy tàccu donte am na ñu leen di femm te nee naa foofu ba mu waxee loolu yuuxu la ko ñëpp waroon def loolu moo topp après ci li ma wax nii ñenn ñu ne waaw non dañ ko manipuler ndax man maa ngi woon ci salle bi foofu kenn tàccu wu fa. Mm. oustaz balaa yëguñu xew de. dafa am ñu dem bay door am ñu leen eh, arrêté leen. vidéo bi loolu moo ci nekk. waaw parce que bii. dañu dem dafa wax ne homosexualité rek ñu ne tëj tëj tëj am ñu ne leen hee hee hee femmu leen ñu arrêté. Mm. ma leen donte am na ñu leen di femmu donte am na ñu leen di femmu bu la rawee ci sama wax. Mm. munoo ko àtte. ça veut dire kon xale yi tàcc wuñu oustaz. waaw ma ne am ñu doon tàccu dañ ko période boobu laa ne yuuxoo laa bëggoon ñu def ko ko bi mu waxee ne moo dugal loi buy daganal ngóor jigéen bu bëgg ñu may ñaari góor ñu takkante ci France. mais dañoo am gan. te loolu duñ ko mën loolu ñoom la concerne mais man li ma man li ma gëm laa wax xanaa. sa bëgg-bëgg nga wax. waaw dama ne bi mu tuddee lu mel noonu dañ ko waroon a yuuxoo pas ba am benn benn yoo xam ne ñuy tàccu donte ñeneen ñi ñu ngi leen di femm loolu lu leer la léegi nag lan moo indi wax ji mooy discours bi boo ko dégloo forme discours bi. Mm. danga naan c'est bon. Mm-hmm. forme bi. Mm-hmm. mais forme bi du moo may convaincre man fond bi laay ñëw dem. ndax forme bi nee naa la changé wul te gëm naa ne mooy pas-pasam mooy duñ ko fi mos a man tollatuma ci légaliser maa ngi toll ci criminaliser. mais ça ne vous rassure pas ku leen ni duñu ko mës a légaliser est-ce que mënuñu xaar ëllëg mu daal di indi réponse xam nga lu tax ne xam nga lu tax rassuré wu ma man nee naa damay dox ci principe principe lay dox même chose laa doon wax ci Macky Sall fu ko mës a dékkee micro ci mu jóg nguuram lu muy wax mooy duñ ko fi mës a daganal ñu ne ko ñun waxuñu waxu daganal de dépénaliser weesu nañ ko criminaliser lañ toll. technicien bi mën nañu may ñu déglu ma Macky Sall moom itamit mujj gi loolu doo nga la doon wax. ànd mm. saa mujj koy bu ñu jugee yëngal yi ñu yëngal. Mm. def li ñu def fu dem danaan duñ ko fi mosa daganal. Mm-hmm. nañ déglu loolu dellu si. waaw Modou bu dee pare na ñu xool élément boobu tamit. la ma ci jot a wax ci Sénégal wax ko ci bitim réew wax ko ci kanamu àdduna bi yëpp wax ko ci kanamu président Obama fii ci pale bi wa ko ci kanamu premier ministre bu Canada Justin Trudeau. wax ko ci kanam Union européenne ma na leen fii ak maa ngi nekk président du Sénégal suñu loi boobu kenn du ko. Euh, je veux que les waaw maa ngi doon wax léegi ci wàllu euh, mbirum loi bi nga xam ne Sénégal mooy tere wàllu góor jigéen donc ndax dañ laaj léegi premier ministre Canada mu wane moom taxawaayam ci àdduna bi pour défendre lépp luy droit wu doomu aadama ma xamal ko ni loolu bu ñu kon nangu nangulee loolu moom ci réewam nañu nangul suñu réew fii ci Sénégal ne suñu ay loi dafay taxawal li nga xam ne ñun moom lañu nekk muy d'abord ay africain ay ay africain waaye itam li ci gën a bëri ay nitu diine ak majorité islam ay nitu diine globalement et que suñu dëkk dafa am sutura dafa am ay valeurs yoo xam ne mayewul ñuy nangu lépp luy wone euh, loo xam ne méngoowul ak suñu gis-gis wala góor jigéen Euh, loi bi moo ko fi tere donc loolu xamal naa ko ne fas yéene ma ci fànn boobu en tout cas yëkkati si benn doxalin buy delloo Sénégal ginnaaw si taxawaayam loolu du tere Sénégal réew démocratie la réew buy respecté droit de l'homme la waaye lépp nag si biir suñu dundu diñ ko fas yéene euh, doxalee si ci worma ak ci sutura loolu moom Sénégal euh, dina si taxaw bu baax a baax te du ci dellu ginnaaw benn yoon voilà dafay dafay ñëw tam fekk si cadre yu Ousmane Sonko wax ku mu Macky Sall Ousmane Sonko ci biir wax ji nee na euh, persécution musu cee am waaye du lu ñuy mës a nangu fii ci Sénégal. Mhm. moom laa wax ne fii lañ tolloon ak Macky Sall xam nga Macky Sall njëlbeenu nguuram lu mu doon wax. Mhm. pareeguñ ba fi Obama ñëwee 2013. Mhm. Sénégal euh, n'est encore prêt ñu ne ko duñ mës a pare. Sonko mi fàttali na ko ko ba tàyyi loolu moo ko topp giiru nguuram pareeguñ googu moo waxoon ci kanamu obam ñu dem ba 2015 mu dem ca tubaab ya ñu dalal ko fa. muy waxtaan ñu koy laaj ci mbirum góor jigéen ba mu yegg ci ne Sénégal da ngeen ñu nangul ne am nañ suñuy mbaax mbaax. suñuy ngëm-ngëm ci wàllu diine wàllu culture. loolu maanaam mu ngi doon woon tubaab bi ne ko comme liñ bëgg ñoom ñu dépénaliser góor jigéen moom Sénégal dëppoowul ak suñuy réalité. waaye nag attention euh, ñi nga fa am nañ góor jigéen yu nekk ci noonu. Mm-hmm. ay homosexuel c'est non. Mm-hmm. mu ne am na. Mm-hmm. tubaab bi ne ko ah bon mën nañoo génn def seeni défilé génn ci mbedd yi di saata gaay yu di dem ak a ñëw. mu ne ko bien sûr. mu ne ko dañu am problème état bi mu ne ko non. mu ne ko ak population bi mu ne ko ah loolu moom garanti wul ndax danañ am problème population bi mu dee. loolu Macky Sall 2015 ñun fu ñu toll dañ ko doon fàttali. Mhm. mooy ndekete ñun dañoo am état bi ak population bi. discours foofu la ci yemoon mais biñ ñëwee ba ànd sàmm ji koy juddu bokk na ci li taxoon mu ne moom loi bi du ko voté. Mhm. mooy pourquoi ndax loi nekkoon na fi ba pare te loi bi du ko mës a dag du ko mës a daganal ñu ne ko ñun waxuñu waxu daganal. Mhm. ñun ñu ngi ci waxu criminaliser. léegi ki nga xam ne man foofu laa tolloon man. président Sonko discours bi li muy rafet rafet yëpp ci wàllu duñ ko fi ma a nangu da ngeen am seen réalité ñu am suñu réalité su ma ñëwoon France bëgg a takk ñaari jabar du ngeen ma ko may ndax seen loi daf ko bañ te sénégalais ya fa dëkk nangul nañ leen ko euh, ba mu waxee loolu ba pare def ne nag nanguwuñ ko mais nag ñi nga am yaatu dënn ci ñoom ma ne ko loolu amul nanguwuñ ko amuñ yaatu dënn ci ñoom te ñi koy layal koo ci laaj ne ko yow est-ce que yow euh, am nga tolérance ci góor jigéen yi daan la non mm. ñu koy layal mm. gis nga nit il faut mu doon ko ragal yàlla yàlla gënal ko lu dul yàlla man mën naa bëgg Ousmane Sonko mu nekk sama leader jaral ma lu nekk ci défendre ko tout ça mm-hmm. mais nag bu dëgg taxawee nañ ko wax dëgg ñu jàll te gis naa gis nga atmosphère u saal bi saal bi bi mu waxee ba tollu foofu mm-hmm. saal bi dana tekk parce que ñu ngi doon xaar sa réponse ñu n'est pas accepté. bi mu ko waxee. waaw mais il toll toléré. Mm. saal bi dana tekk étudiants yi doon tàccu kenn tàccu ba mi bi yeggee ci baatu percussion diggante boobu yooyu kenn tàccu lan moo tax mooy étudiants yi dégg nañ la muy wax te diggante boobu d'accorduñ ci atmosphère bi loolu la wax. lan mooy euh, euh, wane ne tolloore wuñ ko ci Sénégal li ma jot a tudd yu bari bari na ci Sénégal tey amul kenn koo ne yàlla nga am doomu góor jigéen mu ne amin mais le fait que euh, xam nañu kii góor jigéen la mu nekk ci koñ. kan nga fi gis ci Sénégal léegi jamono ju mujj jii góor jigéen bu nekk ci koñ di daagu gisatuñ ko Sénégal jamono ju mujj jii lu dul lu néew ay 1 pour cent ndax lan depuis bi xale yi tàmbalee génnee yat ak léegi yat bi ko tàmbalee génneeg léegi. gisatoo lu mel noonu. leen di bàyyi ñuy dem euh, leen neex. lieu privé la lieu privé àndul ñu fay dem ci société bi. lañ bokk ña fay ñoom ñan ñooy nekk ci boîte de nuit ay fecckat mbandkat. kooku mën na ah, toléré góor jigéen leen société yaa ngi atte société bi rassemblement bay am ca place de ah, loolu ñoom ñi kii dem ci baar bi sax ci société bi la bokk. léegi est-ce accepté nañ jigéen ñi jaay seen bopp Ah, ñu ngi ci mbedd mi taxaw chaque guddi mais taxul ñu. est-ce que toléré nañ ko société bi dañ ko toléré wala dañ cee ñàkk a pexe. ñun de ngi leen di romb. dañ leen dañ leen di ree rek. te loolu toléré laa ko jàppe ko. d'accord imam am na ñu nekk Sénégal gii di sàcc suñuy milliards rapport yi génn na ñu sàcc ay milliards suñu xaalisu Covid bi ñu sàcc ko Sénégal gii la xewee ñi ngi fi mais toléré wuñ ko dañu bëgg yoon def liggéey ci ñoom te ñu ngi lay romb di dem ak ñëw est-ce ci dal ci kaw kenn tey am na rappor yi ñu mu jàpp ne dañoo sàcc ay milliards est-ce que dañu romb ñu dal ci seen kaw ah, ñooñu dañuy ñëw ci sa xew yi ah dañuy ñëw boo amee xew dañuy ñëw te ñoo ngi leen di toléré ñu ngi leen di muñal xam nañu ñoo ko sàcc te toléré wu ñu leen de ah, bu ñu sañoon suba suba procureur moom laa la wax ma ne la léegi est-ce que ñëw foofu dafa tegti ne dañ leen a toléré amul toléré wuñu leen ndax sénégalais ñi ngi bëgg yoon def liggéeyam ngóor jigéen tamit foofu la ci Sénégalais yi toll ki nga xam ne moom nga toll rek mooy lu mel ne nii Europe nga xam ne nii dem nga yow ba nga xam ne lii ëpp na loxo mënatoo ci dara mm-hmm. nga nekk man sama yoon nekkul ci ñoom wala ñenn ñi jël leen bool leen ci seen bopp mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moom mooy li nekk mm-hmm. mais amul kenn koo xam ne ni ci société bi ci Sénégal gii nga xam ne ni moom laa xam koo xam ne ni am na yaatu dënn ci ñoom te loolu noonu la firnde yu baree baree bare a joxe li mu joxew percussion bi wax ne amul waaw baat boobu sax moo gën a wérati Sénégal góor jigéen bu ñu fi bundu xataal Mm. li mu a xew Kaolack lu muy wane. mooy euh, ki ñu génne woon ci. bàmmeelam lakk ko. Mm. waaw. xam nga lu muy wane. waaw mooy sénégalais bañ lu bon état bi ne du ko ko saafaraal ñu mujj di ko saafaraal seen bopp mu ëpp. Mm-hmm. percussion mën na weesu loolu. Mm-hmm. percussion mën na weesu tey ñu naan non góor jigéen tey koo fi dóor dañ lay yóbbu ci yoon nangam ak nangam. Mm-hmm. am na ñenn ñu ma dégg ñuy layal naan noo bu ñu waxee tolérance mooy xam nga bu ñu jàppee góor jigéen yóbbu ko tëj ko. léegi tey ñu bàyyi ko. ñan ñoo ko yóbbu bañ tëj ko ak ñan ñoo ko bàyyi. maanaam bu ne woon nun suñu luwaay yi dafa nekk ñu am tolérance ci ngóor jigéen ma ne ko mm-hmm. ma ne ko amul ko amul polémique mm-hmm. waaye ci société bi la doon wax ba wax ne xam nañu mm-hmm. li nga xam ne mooy ngóor jigéen mais ñu ngi leen gérer ak manière bi nga xam ne ni moom lañ leen di gérer amul kenn kuñ ci buddu xataal muy fii ci Sénégal muy fii ci Afrique feneen ci Afrique xam nga Afrique yenn réew yi fan lañ ci toll fi mu wax ne yegguñ ci percussion góor jigéen taal yenn réew Afrique yi bari mi ngi ci internet bi circulé bu ñu jàppee góor jigéen taal lañ koy def moo tax yenn réew yi criminaliser ko d'abord. Mm-hmm. léegi lu mel noonu ci biir discours bi li ngay nangu nangu forme bi nangul ne fond boobu noonu am na problème ñu jàll ci leneen. Mm-hmm. beneen yoon buy wax discours mu bañ a wax lu mel noonu. société bi kañu xamoon nekkul kii tubaab bi di leen imposer kii tubaab bi di ñu imposer du kii société bi xamoon. léegi xam nañ ngóor jigéen yàgg na ci nun même bu muy wax ci Walfadjri même chose wax na ko mi ngi ñi yor communication mais nañ ko corriger ci loolu ku mel ne Makhtar Sarr toog tegal ko lan mooy góor yaay ak lan mooy góor jigéen. sénégalais yi mosu ñoo am tolérance ci ñaari góor ñu gis ci mbedd kottante ku ko fi def ñu rëq sa digg dam yàgg na ko wax. waaw ah, loolu moom mayuñu mayuñu leen ko amuñu fitam sax ci mim réew. ah léegi bu fekkoon société bi am na tolérance mais sëñ nekk Europe ñi ngi nekk Europe di ma seetaan ñi ngi nekk États-Unis mm-hmm. ñoo ñoo am tolérance ci ngóor jigéen. Mm-hmm. ndax sa yoon nekku ci da nga leen romb ci mbedd yi ñuy fóonante góor gu fi fóonante doo too ko defati. Mm-hmm. léegi nañ annoncé fenn ne dañ koy dem di fa takkante bu Sénégalais ci seen biir fa ñuy takkante lañ leen di fekk. jàpp leen woo police ñu jël leen yóbbu léegi lan moo tax police du leen bàyyi nekkul toloore gi. Mm-hmm. déedéet police tolooreewul de. Mm-hmm. mais loi yi moo baaxatul pour mën a atte phénomène yu bees yi. Mm-hmm. moo tax boo ko fa yóbboo mu am benn avocat buñ ko tëjee sax am na ci ñoo xam ne jàpp nañu leen ba tëj leen. waaw kaso amoon ci mbirum góor jigéen. mais ku ci dem taxaw ci kanamu àttekat bi boo amee avocat bu baax mu bàyyi la. ndax yow la nga doon def yaa ngi ko defee ci bërëb boo xam ne nii bu laa la ba koy def dañ la bett filmer la nangam ak nangam la yàlla bañ jël la bàyyi la. léegi lu mel noonu nag bu fekkee ne ni am na mais ku mel ne noonu yàgg ci mbir mi. Mhm. bu ma dajalee lépp dama naan discours bi dafa xormet. Mhm. ci wàllu googu noonu la laa ko waxee te loolu noonu la lii ci sama raison lii dong la. d'accord mais beneen côté bi amul changement ba léegi ñu ngi wéy di am yaakaar loolu nag tekkiwul ne dañ ne bi man convaincre ma mais mën na convaincre keneen. mais kooku convaincre na ko mais man convaincre ma am naa ci liberté. parce que looloo ma jaaxal oustaz am na ñoo xam ne a bokkoon combat ni Ababacar Mbuub Cheikh Omar Diagne ñoom gis nañ ni Sonko répondre na lu mu war a répondre mais avec fermeté. loolu seen gis-gis la. waaw bu ñu ko nangulee Cheikh Omar Diagne nañ ko nangul Makhtar Sarr. d'accord ne moom wax na ne duñ nangu dépénaliser mais waxul ci waxu criminaliser man nee naa foofu laa toll. mais loolu leneen la euh, oustaz. leneen loolu la ñuy xaar nag moo tax ma ne. gannaaw léegi leneen loolu noonu laa soxla dama bëggoon keroog mu profité. Mm-hmm. annoncé tubaab bi ne ko ñun ñi ngi waaj dugal loi bu koy criminaliser. pourtant fële ca tugal seen média yu bëri dañoo jug ne Ousmane Sonko a été trop radical ba pare homophobe sax lañ ko tuddee. tugal waa tugal la mais pas Sénégal tugal nañuy liiree ak Makhtar Sarr ni muy liiree du benn. ma tugal tugal ñoom xam nga fu ñu toll. Mm-hmm. mooy dañoo bëgg ñu dépénaliser ko ñoom ko ñoom da leen di déranger. homophobe lañ la tuddee. mais Maxtaar Sarr toll Maxtaar saar tollul ci waxu kenn du ko dépénaliser weesu na ko. kenn du ko xa moom mi ngi toll ci dañ koy criminaliser. ki nga xam ne esprit mi ngi toll ci ngóor jigéen nañ ko criminaliser ñu jàll ci leneen kooku du noo dañ koy def duñ ko fi mos a dépénaliser Macky Sall même chose la doon wax convaincre ma weesu nañ ne ay du daganal kenn du ko fi daganal déedéet criminaliser mooy yokk daani mm-hmm. daganal mooy teggi daani maanaam lan mooy dépénaliser mooy article 319 alinéa 3 nañ ko màbbu ak yeneen article yi mu làngool yëpp ñu ngi ko gën a leeral nañ ko màbbu ci suuf sànni ca àll ba léegi bu ñu ko màbbee léegi góor jigéen bu leen neexee ñu fóonante ci mbedd mi takkante te amul ko leen takk xanaa ñu àtt leen ci euh, attentat à la pudeur rek yu mel noonu mm-hmm. lañ mën a àttee waaye euh, wàllu góor jigéen bu ñu dépénaliser. Mhm. bu leen neexee léegi ñu dem ci mairie ba ñu may leen. Mhm. loolu beneen loi la bu beneen revendication la bu ñuy jàll. Mhm. mooy ñu jox leen droit wu ñu mën a am ay këyit comme ñeneen ñi. léegi nag loolu laa ne Sénégal jarul naan duñ ko fi def am na ku mën a satisfaire effectivement comme ñu bari ci société bi ni mu leen satisfaire. discours bi ak fermeté la ko wax mais ci biir discours boo xam ne am na fermeté boo waxee ba ci biir. nga ne kat duñ ko nangu. waaye ñi nga am yaatu dënn ci ñoom. dama naan la amuñ yaatu dënn ci ñoom. amul kuñ ci persécuté dama naan la weesu nañ foofu noonu persécution bi moom dafa jéggi dayo ba moo waral ñu bari daw génn Sénégal góor jigéen yi bari tey nekkatuñ fii ña nga bitim réew. nekk ci réseaux sociaux yi. ci réseaux sociaux yi la ñu nekk di wax mais Sénégal gi kenn ci góor jigéen ñemewu fee génn. Mm-hmm. ñu lay invité ngay ñëw euh, Seneweb di wax di ñibbi. Mm-hmm. ci jàmm. Mm-hmm. wala nga ñëw Walfadjri di wax di ñi wala RTS di ñibbi ci jàmm non kenn ñemewu ko fi. foofu la société bi toll. loolu noonu la fermeté bi dafay ànd ak loolu noonu nga woon fermeté bi baat yii nii dugg ci. kon dama naan ah alhamdulilah la mu waxoon ca wal fajiri ci wolof moom la laakaar fii ci tubaab. Mm, d'accord loolu tamit il ñu nangul ñu ko. Mm-hmm. nga xam ne nii man li may liiree benn discours bu may déglu déglu bi déglu fond bi koo xam ne yàgg naa wax ci mel mbir. Mm-hmm. yàgg déglu état bi nga xam ne moom moo fi génn wax ci te la mu ci doon wax convaincre ko. Mm-hmm. man tamit foofu laay tollaat ne discours bi forme bi mën na ma convaincre ci kaw. mais nag fond bi convaincre ma ndax société bi amul fu ñu fi accepté wala ñu tolérer am benn tolérance lu jëm ci wàllu ngóor jigéen. ne bu ñu demee ba nga xam ne am nañ luñ bëgg ci assemblée danañ ko voté. waaw assemblée nationale léegi nag li ñuy jaawale mooy Makhtar Sarr bi nga xam ne lii la wax. Mm-hmm. am ñenn ñuy politique dem dagg waxam jël ko yóbbu ko yow nga ñëw di. Mm-hmm. sukkandiku ci loolu di dal ci kawam. Mm-hmm. te kooku bu ko yóbboo appal lu mu ciy teg mooy gis nga gars yi duñ ko mës a daganal. oustaz yi tax léegi xam nañ ne ñoo leen doon jàppale. waaye gis nañ ne ñi ngi tàmbalee gis conséquence bi. man damay taxaw fi ma taxaw de kenn du ma buux ma yóbbu ci sa camp ku ciy góor. war a jëmmarloog ñii fi nekk nii ci wàll politique takkal sa tubéy ba mu dëgër mhm. nga dem jëmmarloog ñoom ci wàllu politique mhm. mais bu laaj ko ci ay waxu jàmbur ñooñu nekk ca pouvoir ba tamit bu ñu jël samay wax déformé ko di ko yóbbu ci loo xam ne nii waxuma ko man li ma wax lu clair la pour di ko combattre mhm. waaw loolu noonu lay euh, loo xam ne la moom lañ bëggoon a leeral ci wàllu